man bu ma duggee ci mbir dama ciy def sérieux ba war te lii may def duma ci apparente président Macky Sall lii nii maa ko jiite woon 2019 jiitewaat ko 2022 kon lii kenn mënuma ko kenn mënuma ma cee turiande muy jàll loolu it ñoom waroon nañ koo xam parrainage bu mucc ayib la ñoom amuñu daanaka doublon interne malgré le nombre de doublons il a fallu ñu ne 10 000 parrains gisuñu leen ci fichier bi mais 10 000 pare yi wax leen ñu kan la ne leen ñu faa duggee nangam gisuñ ko ci fichier yi ñu génnee leen seen carte électeur tegal leen ko ndax loolu it prévoir woon naa bu ngeen ñu joxee list bi balaa ngoon ñu génnee leen ku ci ne ne leen carte d'identité ma ngi nii ak ak numéro carte d'électeur am numéro national d'identification ak léppam te nag ma wax ko ne man mënumaa dindi ci processus électoral danaa ko indil 20 000 mën naa ko indil 100 000 parrain ñu ngi nii fii suñu mandataire ba mu ñëwee dañ ko recevoir ca greffe ba jël clé bi ànd ak suñu informaticien bi toog dugal ñoom ñu toog greffe toog ñuy compter. Saint-Louis Sédhiou Tamba Thiès Saint-Louis de dégg leen bu wax Saint-Louis continuer ba muy 14 14 régions la ñu am Saint-Louis ngi ne ah kii mooy tampon bi tampon moom kenn du ne leeru ba ñëwee ci suba ñu dugal clé ñu ne leen Saint-Louis newul waaw ñaata conseil constitutionnel la ñu am fii ci réew mi donc ñu éliminer de notre parrainage toute la région de Saint-Louis. yow nooy dugalee clé wu jàmbur bi mu la jox nga ne Saint-Louis ngi ci mu ñëw pour vérifier nga ne ko Saint-Louis newu ci njuñ njaaja nga bu leer nañ mais pexe bi dafa leer mu ngi nii conseil constitutionnel moo ko signé ancien garde des Sceaux la ministre de la justice li may wax dama koy teg ci ay kayit ak ci ay na ñu delloo suñu ay parrain wu Saint-Louis ci biir ah lu ko may ñun nañ porter plainte contre X auprès dañu ne woon ñañ joxoon clé bi